muy wax ne wa mahabbati wa tarkil xiiba islaahi saati bayni tarki saxna mu ne na bëggante te bàyyi rambaaj settali seen diggante te bàyyi noono mu doon bayit boo xam ne bu am solo la nga xam ne taalibe bu topp tànk yooyu rekk wallahi lépp loo bëgg ci xadara bi rekk dana la yomb seex bi moom lim am lépp yàlla la tey tamit moom rekk la am pour joxe kon su fekkee ne nag bëgg nga am ca loola da ngay topp ay digalam bokk na ci lim ñuy digal ci waxtu wu nekk mooy liggéey ragal yàlla jaamu ko te kenn bañ kenn ba tax na bëggante lu am solo la ci xadara bi bëggante ga ñuy bëggante mooy tax rek ñu dimbalante waaw dajale yim ñuy dajaloo nii yëpp ñu nekk ay dawaayir lan la ngir rek ñu xamante te bu ñu xamantee rek danañ bëggante te suñu bëggantee rek danañ dimbalante kon daal seex bi daal li may wax ci waxtu wu nekk rek moom moo taxaw ci maxaama wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil aalamina kon ku am seex bu mel noonu seex bu toll noonu jeex te takk ci yàlla am cër ci yàlla te itam xam cër bi nga xamee ne am na ko ci yàlla kon jàppal ba mu dëgër te xam ne ngëneel kese rek nga fay jëlee kon nag mu mel ni suñu bëggantee rek wallahi jàmm rek la ñuy dund waaw jàmm rek la ñuy dund te jàmm rek itam la ñuy am waaw te itam képp koo xamee ne nii yaa ngi xaw a lu mel ni rambaaj na ko moytu rambaaj mooy nga wax ci kii lii jugewaat fa waxaat ca kële lële tey nga ne diwa baax suba nga ne moo bon këlee baax di dugg ci diggante nit ñi léegi-léeg mbir ñëw sax nga attee ko noo xam ne dara leeru la ca waaw te alxuraan daf ñu waxoon ne yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu mu ne bu fekkee kàccoor dafa ñëw nag indil la message mu ne su boobaa nanga nga bérbéllu waaw nañu bàyyi xel bu baax a baax lépp lu nit di ñëw di ñu ko wax balaa ñuy xoolee kooka bët booba nañ fexe pour déggee ci booram tam mu doon loo xam ne lu am solo la waaye nit ñi ci jamono bi ñu toll ñu bëri dañoo wik suma maas gi naan yàlla yàlla yàlla waaye am na nu yàlla doon ko rek su boobaa rek nga xam ne la ñuy wax dara du ci dëgg ci ñoom ba tax na la ñenn ñi dafa am fu ñuy xaar nit di ko fa xool kon nag bu kenn ñëwee ba am lu leen wax ca kooka rek su boobaa bët booba la ñuy xoolee kooka waaye seex bi loolu gën lu ko ci ñun seex bi royukaay la te ku toog ak moom rek wallahi da ngay yaakaar ne yow la gën a bëgg waaye ñëpp la jël def leen njabootam wallahi ba yermadem bawan ci taalibe yépp wallahi moo tax muy wax ne nañ yéene ante jàmm nañ yéene ante jàmm wallahi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu waxee ne kenn si yéen du gëm lu dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam seex bi mu ne moom ni mu déggee xadis bi mooy dangay ngay njëkk a bëggal sa mbokk mbaax laata nga di ko bëggal sa bopp yow kon nga xam ne kii jàmm la yéene ñëpp waaw waaw jaam ñi la njëkk a yéene jàmm sax laata moom ci boppam kon nag royukaay dëgg mu ngi noonu royukaay dëgg mu ngi noonu fa ñu yàlla di waxee ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mooy seex bi ñu àndal tey waaw ñeel na leen ci seen biir ab royuwaay bu mucc ayib koo koy seex Cerno Abdourahmane Bari yàlla na fi yàgg te wér waaw kon nañ settali suñ diggante bëggante gënni rambaaj settali suñu bëgg diggante yéene xante jàmm waxalante lu baax defalante lu baax wallahi te bàyyi noonoo bi waaw noonoo bi jéggi na dayoo nit ñaa ngi merexante sax ci ay groupe rek groupe yi whatsapp di merexante ci ay facebook nit koo xam ne sax masuloo koo gis masuleen a jëflante lu dul ay kàddu rek diw nangam diw nangam rek nga jàpp loola tax nga mere ko waaw mu doon loo xam ne lu doy waar la te bi ñu seex bi di njaboote loolu taxu ko woon a jub te seex bi ku bëri kersa la wallahi ku bëri kersa la wallahi waaw waaye mbiram lépp jàmm la waaye te so so so akawi am yëg-yëg bu tuuti rek ci fi nga xamee ne fële la bëgg rek wallahi su boobaa da nga da nga da nga bàyyi japon loo jàppoon yalla kese Ah, damay wax ne rahman ya bi, ku ci nekk lépp loo fi amul rek ci yow la waaye Cerno Bari na lip, ku ñëw ak ndabam nag nu mu rek la la solal bi dafa baax tey tamid wax na ne suma talubi nyogen suma xeet ci xeet wi wallahi taalibeem yi ñoo ci gën ñeney taalibeem yi nag waaw waaw ñun de bëgg nañ koo nekk wallahi bëgg nañ koo nekk yal nañ ko nekk waaw te mu nangul ñu ko nag ñu ànd ak moom ba faw nekk taalibe rek moom moo am solo wallahi dama mës a dégg Cheikh Abdoul Xaadir am am kii am am porte parole yi am am xalifa Touba bi ndeysaan waaw macha allah muy wax ne sëñ Bass Abdoul Xaadir macha allah muy wax ne. moom papaam Abdul Xaadir nga xam ne doomi se Ahmad Bamba woon moo nekkoon imaami juma yi jumaa da dadaan wax ne sëñ ma saxir loo daf daan wax ne moom su ko wóoroo ne sëñ Touba nangul na ko taalu taalubeem su boobaa jaral na ko mu bàyyi julli bàyyi oor nga gis sëñ ma saxir loo fu mu toll woon waaw fi mu toll woon ci xadara boobu waaw ak ni nga xamee ne noonu la mënee woon alquran ak taalube yam amoon. mu ne bu ko wóoroon bu ko wóoroon kon nag kenn si ñun wóoraguñu waaw balaa ngaa joxoñ keneen ni kii du taalube këlee taalube loo manul rek am na ko ko man te seex bi ñëpp la bokk njaboote danaay wax ne kii dog ñax di jox fas yi ñu lekk sax wallahi ku am njëriñ la ci seex bi waaw waxuma laa nag keneen ak keneen loo manul rek am na ko ko man kon nañu yéene xante jàmm nañu settali xol yi ànd te yàlla tax lu ñuy wax ñu wax ko yar yàlla tax lu ñuy def ñu def ko te yàlla tax tax xam ne lenn new fi lu dul yàlla di bàyyi xel dee di bàyyi xel dee di bàyyi xel dee wëttu tooñaate tooñ baaxut tooñ baaxut tooñ baaxut seex bi wax na ñu ne tooñkat bi nim ñu ko misaalee mu ne mu ngi mel ni koo xam ne dañu takk ay tànkam takk ay loxoom sànni ko si pax kooku pour jëlee ko foofu du yomb kon nañu bàyyi tooñ lu ñuy wax ci nit nañu leer lu ñuy def nañ ko def te yàlla tax jéem a fexe roy seex bi nga xam ne ci roy ko rek wallahi la ñuy demee ba doon ko jeex si moom takk te moom i tamit uppil nañu buntu boobu amul lenn lum tëj wallahi seex bi amul lenn luy lum tëj ku tëju rek yow yaa tëj sa bopp waaye seex bi ubbi na buntu yëpp kon dañ koy ñaanal rek yàlla na fi yàgg te wér ñu ànd ak moom ba faw sax di taalube mun nangu ñu sunu taalube Thierno Abdourahmane Bari yal nañ fi yàgg te wér jërë ngeen jëf taalibe ñu ngi leen di jégalu ci kàddu yi nag lu lu ci yàqu rek xam leen ne suma xam-xam bu matadi la waaye bu rafetee ngeen gëm gën ngeen gërëmee ko yàlla ak yonent bi waaxiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaam